macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di julli ci yonent bi sallallahu di jërëjëfal ñëpp di wax ne waaw li waral suñ teewaay bi fii euh, suñ xarit suñ soppee di Amadou Bella Diallo moom moo ñu invité ci ay kaamel yoo xamante ne dañ ko war a jàngal fii invité ci mboolem ayima yi nga xamante ne ñoo nekk sali pour ñu defal ko ay kaamel ak ay yaasin mu ubbee liggéey bi nga xamante ne moom la bëgg a liggéey incha allahu loolu lañ doon def Euh, waaw macha allah di sant yàlla bu baax di wax ne li ñuy wax askan wi mooy ne politique dagan na dagan na ci mboolem jaama bi yàlla pour mu politique. boo déggee ñu naan politique nangam wala nangam lañ cay rax mooy tax ñu daganal ko. wala lañ cey rax mooy tax ñu araamal ko kon ñu ngi woo askan wi ñoom ñëpp ñu watee ci jàmm ak salaam kenn ku nekk am nga droit sànnil carte ka nga bëgg a sànnil waaye boo ko sànnee def ko ci respect ak tàggiin kenn ku nekk jox sa morom gëdd kii gañe yalla tudd na ko ba pare incha allah dina gañe te kenn mënu ci dara su boobaa jarut ñaawo jarut jarut xiiroo jarut ñaawo yàlla dina jox ki nga xamante ni moom la tànn ba pare lii daal lay dénk askan ñoom ñëpp kenn ku nekk góorgóorlu buñ yàqal kenn buñ tojal kenn buñ saaga kenn nañ ko def rek ci yar ak tàggin loolu la ñu lislaam digal dañu bëggoon ubbee suñ campagne rek ay ñaan parce que xam nañ ko ne euh, campagne électorale source de tension la donc euh, pour euh, ñaan yàlla que élection yi ñu jëm donc campagne beeg yëpp mu nekk euh, ay élection wala campagne yi nga xam ne c'est apaisé benn tension bañ am benn coow bañ am benn deret bañ a tuuru donc looloo taxoon que ñu daal di commencé ñun suñu programme ak euh, ay ñaan pour euh, ñaan suñu borom rek donc mu may ñu jàmm ci biir Sénégal pas biir Sali mu may ñu jàmm biir Sénégal may may ñu jàmm may jàmm candidat yëpp donc def xolu muñ ci ñoom xam ne que ni lii élection la askan bi moo war a tànn donc bu askan bi tànnee rek ku ci nekk aussi mu nangu que ne askan askan baatu askan bi la ñoom ñoo tànn seen choix la donc bu bañ indi benn jafe-jafe. militants yi ñoo war a yeewu xam seen bopp seen partisans yi ñoo war a góorgóorlu jàmm nag kenn du ko wax dañ koy dund dañ koy sàkku dañ koy wax dañ koy dundal te dañ koy sàkku. ñu leen ñuy ñaanat encore une fois ni wax sénégalais ni lii xew ci Medina ñun Ansar de condamné nañ ko naqarul nañ ko ci biir ak ci biti te ñi ngi ñaan lu mel noonu bu mu amati Sénégal président de la république ak gouvernement bi waruñ jël seen. responsabilité na am ndax ñoom la yàlla dénk destiné réew mi waaye kilifa diine yi tabarakallahu ñi ngi doon def ñi ngi doon ñaan nañu ko yokk ñi nga xam ñoo leader politique yi nag bii passé ñun ñoo leen woo ñu ñëw wuy si ñu déglu suñu appel jox ñu seen contribution ak seen xalaat waaye xew-xew yi ku mu tiitalul rek jàpp naa ni comprendre go enjeu yi nga xam mën na ko indi te bu ñu waxee élection gox ak goxaan li nit ñi war a jàpp mooy même bu doon tey yeneen forme élection la waaye fii local la yow ki nga dëkkal moom nga jàkkaar te tànn ma wala yow laa tànn defe naa ne jarul toj bopp jarul taal oto jarul taal bu jarul dem bay gaañante ci logique boobu incha allah ñun bii yoon ñu ñoo leen fekki organiser li ñuy tuddee caravane de la paix et de la sensibilisation demaat ci ñoom dem ci jàkka yi waxaat ak imam yi delluwaat ci suñu mbokku chrétien yi waxtaan ak ñoom pour wax leen ni ñun tey li ñuy yéene bëgg ko mooy jàmm jooju du loo xam rek daa war a yem ci kaddu daa war a yem ci ñaan daa war yem ci lu ñuy soññ askan wi waaye na nekk loo xam dañ ko war a dox.